fexe ba jàngal alxuraan nit ba mu mokkal alxuraan yar ko ba muy soleeg safaan lii ngay faye sëñ soxe bu xamal nga daw ñi seen borom bañ jëf ndigal bàyyi tereem nit ñaa ngi sant kay ak a yéem te yéem nga lool sëñ soxe bu sa baay bu del si woon durus ndax alxuraan yaa ngi koy durus yaa ngi sikkar di yor kurus doo rus ëllëg fa soxe bu yow yaa ngi ci jub moo gën a wóor ngir yaa ngi jàng yaa ngi woor te tabbi woo ci lu la wóor lii reeloo nga tey sëñ soy bu sëñ soy bu lam yene woon cim njàng léegi lam yéene woon def nga ko yow na mu bëggee woon bëggal nga lool sëñ soy bu sa maama moom moom alxuraan aboo doomi alxuraan am sa di ci alxuraan yàllaa la jagleel soy bu am saadi di bàyyi naas mi am sa it amul kalaas képp ku ko jàppee kalaas na jéem a wootu soy xam naa waxtu wee xat waaye bu téeméeri bayit la dañ ko àggale benn yoon jërë ngeen jëf jërëjëf Serigne kon ñu jox Serigne Aliou Diop mi nga xam ne moo jiite